si réew moom ma waar fu ma jaar tey ma bay si waar àddunaay bëgg a tukki wala li xaw si mi daal doy na waar dëkki foowe ki caaxaan fecc rek la def muy ñàkk jom ba mel ni aas xam yàlla ngi leen di xaar wala ma seen patigaale dafa mel ni yàlla lañu faatu ndax ndaw yi ma gis duñu rus lànk nañ ñoom dootuñu rus doo leen gis mukk ñoor kuus ma laa xasida bay du rus koo fi gis mu naan chef naturel nga naan ko muuru mu naan daa naturel da dugti ba naan karava yàlla ne xaar ak i ma gis góor bu bon di kiris koros wan la kalson te farox mu romb genn naa ko fis billaahi waxal ñi ñoo torox ma gis politiciens yi waaye di loolu ñàkk xorom di dund lu yokk lekkante seen biir comme ay jën te seen cadre moo rawi son ñoom ñëpp ay kenn siti expérience ak rek la ñu am seetlul kuñ ci wóodig ñu képp ko xoolal ko fi waxoon daaw ma ki liggéeyu nañ ko folli xoolaat ko tey moo fi waxaat ma kee ko yor ndax fan lañ ko tey ñu ko waxati ko tey ñu jug leeral ko junj day na borom xel moo tax faawu tey ñu jottali ko li xew si moo ma waar ma jaar tey ma bay si waar addunaay bëgg a tukki wala li xew ci réew mi daal doy na waar wax nañ ko waxati ko tey ñu jug leeral ko juñ doy na boroom xel moo tax faawu tey ñu jottali ko. li xew si réew moom moomu waar fu ma jaar tey ma bay si waar. àddunaay bëgg a tukki wala di xew si réew mi daal doy na waar. dëkke fawee ki jaaxaan fecc rek la ñu def muy aar. ñàkk jëm ba mel ni aas xamuñu yàllaa ngi leen di xaar. xoolal ma seen petit galle dafa mel ne yàlla la ñu fàtte. ndax ndaw yi ma gis duñu rus lànk nañu ñoom dootuñu rus. doo leen gis mukk ñu yor kurus waxuma laa xasi da bay kurus koo fi gis mu naan cheveux naturel nga naan ko muur man daa naturel jëndub ci bam naan karawaa yàlla ngi koy xaar ak i karawaas ma gis góor bu bon di kiris koros wan la caleçon bu ñuul ta forox rombub geram naan ko fiis wallaahi waxal ñi ñoo torox ma gis politiciens yi waaye di lool ñàkk xorom di dund lu yomb lekkante seen bi comme ay jën te seen i kàddu moo rawisan ñoom ñëpp a yem kenn setul expérience sàcc rek la ñu am seetlul kuñ si woo dig ñu képp ko xoolal ma xoolal ma ki fi waxoon daaw Macky liggéeyul nañ ko folli xoolaat ko tey moo fi waxaat Macky ko yor ndax fan na ko tey wax nañ ko waxati ko tey ñu dug leeral ko junj day na borom xel moo tax faawu tey ñu jottali ko. li xew si réew mi moo ma waar fu ma jaar tey ma bay si waar. addunaay bëgg a tukki wala li xew si réew mi daal doy na waar. dëkke fawee ki caaxaan fecc rek la ñu def muy xaar. ñàkk jom ba mel ni aas xamuñu yàllaa ngi leen di xaar. xoolal ma seen petit dafa mel ne yàlla la ñu faat. ndax ndaw yi ma gis duñu rus lànq nañu ñoom dootuñu rus. doo leen gis mukk ñu yor kurus waxuma laa xas da bay durus koo fi gis mu naan cheveux naturel nga naan ko muuru mu naan daa naturel jëndub ci bam naan karawaay yàllaa ni xaar ak i karawaas ma gis góor gu bon di kiris koros wan la caleçon bu ñuul te farox mu rombu ger naan ko fiis billaahi waxal ñi ñoo torox ma gis politiciens yi waaye du lool ñàkk xorom di dund lu yomb lekkan seen bi comme ay jaan te seeni kàddu moo rawisal ñoom ñëpp a yem kenn setul expérience sàcc rek la ñu am seetlul si woo képp ko xoolal ma ki fi waxoon ko folli tay. Makikuyong, dakfal na ko tay.